abonné wu leen ci Buzz Media TV la chaîne des patriotes ngir di am ay actualité saa yu ne dal leen ak jàmm mbokk yi internet yi Buzz Media TV la chaîne de patriote abonné te bës cloche de notification bi ngir doo perte benn actualité saa yu ne ngay am ay actualité bu leen fàtte di commentaire tey bés like bi mais tax nga Demba Touré dal leen a yëkkati kàddu di wax ne ñaari fan yu néew wala tuuti rek Ousmane ko dina def benn déclaration lu waral muy def déclaration wax ci li tax ñu jële barricade ci këram waaye nag wax ci investir bi wax ci nan lay def ba bind ay kayitam yóbbu ko ngir kat waa ñi nga xam ne ñoo war a lijjanti ak candidature am wax ko lu leer mu ne nag ñoom lu ñu tontu booba lay doog a wax sénégalais yi lan moo ciy nekk seenum taxawaay mais nga jëmature yi mu fu ni mel mu ne fan yu dina génn wax li nga xam ne moom la sénégalais yi bëgg dégg muy déclaré candidature am ba pare bind ay dossier yóbbu ko ka ko war a valider nag moom nee na kooku lay xaar ba xam lu mu koy tontu Ousmane Sonko moo wax lu ni mel mais tax nga jëmature dal di koy jàllaleen waaye nag Buzz Media TV yi la chaîne des patriotes ñoo ngi leen di wax bonne fête de Tamxarit yàlla na na ko suñu borom defal ñu fekk ko ay ati ati